yaa ngi ay mbër fi mu toll nii. ëpp na waaye nag góor yu ñu ñu si góor yu bëri yu du ñëpp de ndax ñëpp ñoo bokk jikko mais mbër lii moo tax ñuy saaga mbër da ngay nekk ak mbër di ko defal lu baax da ngay nekk ak mbër di ko defal lu baax suba mu la kooku daa gore kooku ku la defal lu baax nga bàyyi ko da gore te mosoo ko may cent mille franc mosoo ko may deux cent mille da ngaa gore nga gore waaye Fall ñun te waxtaan dëgg ci rajo. léegi yow maanaam su ma wax ji da leen di jàppale te yàlla tax wala da nga leen di jàppale pour loo ci am. dama leen jàppale te yàlla tax. ku ma jox dara nag ma tee fen baaxul nit ngay wax sa diggante ak yàlla. mais est ce que tamit est que tamit gars yi wóolu nañ la ba yëkkati seen alal di jox ngay téye. waaw ma ci wóoluwul. yow yaa xam. kañ joxuma lekk. fu ma dëkk kenn ñëwu fi hmm? sama dépense kenn fayal kenn joxuma ko sama location kenn fayaluma ko kër yaa ngi nii yow ñëw nga suñu kër Patte d'Oie voilà gis nu mel si suuf la jëm de est ce que léegi ngay wàcc ba dëkku ci kër gi laf cat hmm? soolu ma ci ñoom dara xarit daal xarit dama jàpp xarit ku ma jàppee xarit ma jàpp la ma jàppul xarit ma jàpp la xarit waaye nag ba ma wone leneen te ngay dem sa ma dem sama yoon ndax feewu ma weer joxoo ma dépense feewu sama location joxoo ma dara te man damaa juddu di tëdd. léegi kon yow kon yow su ma déggee wax ji yow naka ngay àndee ak ñoom. non man ma ànd ak yow non ñoo may daf si mosuma daf benn ne dam laa bëgg a jàppale ñoo ngi Sénégal yëpp ne fii fan la du Sénégal mbir yaa ngi Sénégal waxuma la mbiru Espagne wala France de. mbiru Sénégal amul kenn ku ma mos a dab dem laa bëgg a jàppale ñoom may dab si ma jàppale leen na gis sa résultat suba nga bàyyi ma. mais est si am ci ndam. waaw léegi la si am ci ndam ba noppi daw. ñàkk a gore daa am ci doomu aadama di. Eh. xanaa xalaatuñu ëllëg. ñoom ñoo jigéen. Mhm. da lay gis am lu mu la faayee. Mhm. bu génnee si yow mu xooli keneen. bu gëreewul xooli keneen jigéen day ànd ak yow bu mu ànd ak yow ci xaalis mu ànd ak yow ci dara matérialiste na ànd ak yow ci mbëggeel ngeen duru dem tey mu nakadi subaa kay neex yàlla day naan bukki xam nga bukki li muy wax ci àdduna bukki bu dundee ci àll ba suur lekk ba suur jàpp na lu mu war a jàpp ba suur day jooy amul tax muy jooy xam ne suba du am dara suba bu ñàkkee buy ñib si day ree ndax xam ne suba day am dara